na kenn ku nekk jóg génn dem voté ji tànn ki nga xam ne moom moo la doy bu ko defee ku yàlla may ndam ñu xam ne ñu la toll. waaw bu dee ci wàllu matériel électoral beeg yooyu vraiment fi ñu jaay yëpp suñu fa benn problème je pense que tout est tout est au point li ñu déploré rek mooy li nga xamante ne moom la acteur politique sali Saly tàmm te di ko def maintenant mu nekk tradition te mooy dem di jëlee ay nit fu ne pour ñu di voter biir sali euh, boo xoolee fichier électoral bi sali ñu ngi ci ay 18000 19000 inscrits.

yàlla rek mooy fal. bi mooy conscientiser waat nit ñi ñu xam ne duñ xar duñu ay béy parce que jël nit ne ko kaay ñu fay la nga voté loolu xar ak béyee ko moom donc nee naa leen ginaar sax léegi yokk na prix bi yokk na wax ma la ak béy ak xar tabaski bi gis ngeen ni prix yi chéré woon bu dee nag nit ñi ñoom dañu dem ba di jaay seen ngor ñu leen di fay pour ñu ñëw di voté war na ñoo commencé dépasser loolu fii ci Sénégal te xam ne esprit républicain moo a animé kenn ci ñun ba lu waay jëf itam boo ci dee di nga nelaw taw bi nag moom suñu lu borom la dañ ko delloo suñu borom rek ñun de gëm nañ yàlla ne taw bi victoire lay annoncé. incha allah amiin amiin